te gërëm ñeel na leen yéen ñi safoo seetaan Feeling Dakar TV koppar bu toll ci milliards lan jiitu réew mi nar def fële ci fi nga xam ne mooy dëkk bii di Matam ginnaaw bi ñu nemmee ko ab tournée économique bu muy amal jamono ji foofu ci Matam ba tey rek ñu desandi kàddu yi nga xam ne kii di Mame Mbaye Niang nekkoon fi ministre de la jeunesse euh, bu fii ci réew mi kàddu yu mu jot a yëkkati nag dinañ ko gën a yaatal ginnaaw bi ko Pape Ngagne Ndiaye dalalee fële ci émission Faram Facce ñu gisoon nag weer yi ñu génn noonu ab soxna buy wuyoo ci turu Aïda Mbacke Aïda Mbacke nag moo faatoon euh, soxna jëkkëram ba tax na rek démb la ñu waroon amal boobu boobulee euh, procès dañu dàq ko nag ba li nga xam ne mooy le 7 juillet ñëwaat nag ci li nga xam ne nemmeeku woon nañ ko ci euh, talaata bi ñu génn ab accident bi Mbay Peex defoon ak Serigne Modou Bara Dolli ñoom nag jiitu réew mi jot na leen dalal démb internet Feeling Dakar lii moo gënoon fës si yéene yi ngeen taaxee lu ma faram fàcceel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 salaamaaleykum internetu Feeling Dakar comme nu ma ko waxee ci jalbeeni xibaar yi dañuy taxaw ci conseil présidentiel bi nga xam ne amoon na fële ci Matam ci noonee nag kiitu njiitu réew mi jot fay yëkkati kàddu bi nga xam ne nag day jël 450 milliards ci cinu koppar nar ko def ci dëkk boobee di maatam ci li nga xam ne day dem lépp dem ci wàllum infrastructure ñuy sax li nga xam ne nag mooy euh, xeer bu njëkk bu mu teg pour li nga xam ne mooy centre régional hospitalier bu Matam ba tax yi nag euh, ci la profito yëkkati kàddu yi nga xam ne euh, di indi ay leeral ci li nga xam ne nag mooy boobu boobule tournée ñëpp jàpp ne app campagne lay amal li nga xam ne nag mooy boobule tournée moom moo ngi xam ne rek jamono yi nag moom liggéey ak gën a ñoŋal li nga xam ne mooy taxawaayu euh, population Sénégal moo ko tax a jóg ba tax na rek yooyu kàddu tamit bokkoon na ci kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati ginnaaw nag bu mu dalalee tamit ñi nga xam ne moom mooy Abdoulaye Mbaye Père ñuy fàttali rek rek euh, ci tournée économique njiitu réew mi la kii euh, di euh, Abdoulaye Mbaye Pekh di ab communicateur traditionnel ak Serigne Modou Bara Dolly Serigne Modou Bara Dolly nag moom ak Mbaye Pekh ab accident la ñu amaloon fële fi nga xam ne nag mooy si tournée économique njiitu réew mi ba tax na rek ay gaañu gaañu yu sew la ci Mbaye Pekh jëlee woon ci jamono yi nag démb kii di njiitu réew mi jot na leen dalal ba waxtaan ak ñoom ba tax na rek ñu leen di ñaanal rek li nga féex ci euh, li nga xam ne jot nañ ko fa gis ñuy fàttali rek première tournée économique gisoon nañ fa tamit ab accident bu métti ba ñett. ñetti euh, reporteru leeral ñàkkoon si seen bakkan ba tax rek euh, ñuy desandi rek ci xam li nga xam ne moom mooy réew mi ci la ñuy wax kii di Mame Mbaye Niang nekkoon jëwriñ ci gouvernement wu Macky sàll yoroon lépp lu dem ci wàllum jeunesse nekk jamono ji nag euh, chef de cabinet bu ñu ti réew mi moom ginnaaw nag bu mu génnee woon am ay kàddu yëkkati ko ci coowul Ousmane Sonko ak Adji Sarr yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ay naataangoom taxele woon ay incompétent ñëwaat na nag ci ki nga xam ne mooy président Idrissa Seck di wax rek euh, kàddu yi nga xam ne jotoon na ko yëkkati bi euh, Idrissa Seck nekk opposant di leen taxé ay sàcc kat euh, moom di Mbaye Ndiaye nag ñëwaat na ci yooyu la kàddu bi ko Pape Ngagne Niang euh, Pape Ngagne Ndiaye dalalee fële ci Faram Facce fële ci TFM mu waat na ci kaddu yooyu nag dëggal ko yeneen kàddu yu mu ñëw nag euh, bokk na si troisième manda ak li nga xam ne nag mooy coow góor jigéen yi nga xam ne mu ngi lëmbee réew mi moom nag nee na kii du njiitu réew mi su naree amal loolu fii ci réew mi rek moom di ci ànd ak moom ba tax na rek Mame Mbaye Niang tamit gën na yaatal li nga xam ne nag mooy xeexum positionnement bi nekk ci biir biir euh, Benno Bokk Yaakaar rawatina nag ci parti bi di euh, Alliance pour la République di APR ñu gis nag euh, ab duel bu amoon ci diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak ki nga xam ne mooy euh, Amadou Ba euh, nekkoon fi ministère ministre des finances ñu gisoon nag li nga xam ne mooy coow lu wutu ki kii di la mairesse bu Ndakaaru ba tax na rekk moom tamit ñëwaat na gën a sampalaat li nga xam ne moom mooy ndëndëm candidat la ci mairie bu Ndakaaru jamono ji nag ñuy wax ak yéen ñu amagum nag ay candidat yu bëri ginnaaw bu ñu nemmeekoo ay bés yu ñu génnoon collectivité lébu xam ne mooy Abdoulaye Diouf saax bala Alioune Ndoye bi nga xam ne jamono jii moom moo nekk maire dakaar Plateau internetu Feeling Dakar kàddu yooyu nekk la Mame Mbaye Niang jot a yëkkati fële ci Faram Facce ba tey rek ñu desandit ci Mame Mbaye Niang ñu gisoon ci coowul Ousmane Sonko Adji Sarr kàddu yu ñaaw yu mu yëkkati woon ba tax na activist bi di Abdou Karim Gueye xurum xak yëkkati woon ay euh, accusation tegoon ko ci kawam comme que euh, kii di euh, mambay Mbaye Niang dafa bëggoon dem ci fi nga xam ne mooy ci président Ousmane Sonko ci noonee tax la ko mambay Mbaye di woon plainte pour diffamation euh, porte plainte boobu nag tey fii ci euh, tribunal bu Ndakaaru hors classe dinañu amal ab procès seen diggante lu ci mën a rusandee rek ci boobu le procès si diggante Mame Mbaye Niang ak ki nga xam ne mooy Abdou Karim Gueye Xrum Xax euh, dinañ ko indiwaat si suñu yeneen jotaayu xibaar gën ko yaatal ñu desandi ci li nga xam ne nag moom mooy ab ñaawteef bu ñu fi nemmeeku woon ay weer ci ginnaaw ab soxna buy wuyoo ci Aïda Mbacké te borom këram di wuyoo si turu Xaadim Ndiaye moom nag jotoon laq ki nga xam ne moom mooy borom këram ginnaaw bu mu xamee kii di borom këram day jël ñaareelu soxna ci noonee tax lañ ko jotoon teg loxo ñu ñuy xamle rek kii di Khadim Ndiaye ab disciple ci papam la ñuy fàttali rek boobu boobule procès waroon na am démb mais dañ ko dàq ba le 7 juin euh, bi nga xam ne nag moom la ñu war a xool leen daan la ñuy teg soxna si di Aïda Mbacké ginnaaw bu ñu koy toppee ab euh, fàtt pakkan internet Feeling Dakar comme ni ñu koy faral di defee saa su rek euh, su lu ci mënti rusandee ci boobu boobule procès bi nga xam ne dinañ ko toppal dinañ ko indi si suñu yeneen jotaayu xibaar ñu ci li nga xam ne nag mooy. di candidature président Macky Sall ak ki nga xam ne nag moo ko war a wuutu moo du Kara Mbacké ginnaaw bu mu ko dalalee woon fële si EMG euh, e ñu dalaloon ko foofu nag mu yëkkati ay kàddu jëmale euh, ci ki nga xam ne nag war na wuutu président Macky Sall moom muy xam ne tax yàlla may na ko ay mbir yi nga xam ne xam na kan moo war a teg kan moo war a wuutu euh, njiitu réew mi ba tax na rek moom mii di Serigne Modou Kara Mbacké moom mun na ko def lu ci mënti am tamit gis nañu coow li nga xam ne nag Euh, bëri na ci li nga xam ne mooy euh, candidat wu président Macky Sall internetu Feeling Dakar euh, lii moo gënoon fës ci li nga xam ne mooy actualité ñu ñëw nag tëjee ak li nga xam ne mooy euh, point Covid 19 bu bés bi dem fële ci ministère de la santé et de l' action sociale jëli euh, li nga xam ne moom la ñu am tey sur 1347 tests réalisés 88 yi ñoom ñoo ñooy am bas bi di Covid 19 li nga xam ne nag mooy 41 cas contact la ñu nemmeeku 47 yi ay transmission communautaire la. jamono yi ñuy wax ak yéen 40 patients jot nañu wér ba ñibbi nañu seen kër 6 cas grave la nemmeeku ci li nga xam ne nag moo ñoo nekk euh, fi nga xam ne mooy service de réanimation ci hôpital yu nekk fii ci réew mi ñaari bakkan a rote ci euh, mbas bi di Covid 19 démb bi mbas bi duggee ci réew mi ba léegi 42 206 personnes jot nañ leen déclaré positif 40 euh, 707 patients nag jot nañ ci wér bi mbas bi duggee ci réew mi ba léegi 1158 jot nañ ci ñàkk seen bakkan ñu tëjee flash bi tàggat yaram wax nag euh, fële ci dem fële ci Argentine ñu gisoon nag kii di Diego Maradona nekkoon ab footballeur bu mag ci àdduna bi moom nag dañu jot 14 ne dañ ko faat ba tax na rek benn avocat ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ay infirmier bu Diego Maradona ñoom nag ñu ngi juut baaraam ñi nga xam ne nag ñooy médecin yu ko faat euh, ki nga xam ne mooy Diego Maradona ñu wax ci euro 2021 Italie nag jot na jël billet wam ci huitième de finale yi dina jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy Suisse Sergio Ramos euh, suñu sàgganiwul dina bàyyi fi nga xam ne mooy Real Madrid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 Dakar, notre plateforme d'information.